li ñuy def même bu nekkul légaliste parce que kooku citoyen lambda bi mën na ko bañ a xam mais citoyen lamda bi mi ngi dund ko ne jënd na paasam te amul ci internet bi donc rupture unilatérale de contrat la opérateur yi di def vis-à-vis de leur client internet bi ñëwaatee tamit du duñu duñ ñu ràmb voilà te donc kii ah, donc client bi individuellement mën na xam ne kii dañ salfaañee droit am donc mën mën a dem saisir xam nga lu ko lu ko jafeel mooy que Sénégal amul lu ñuy wax la classe action xam nga le modèle économique des opérateurs des télécoms c'est les micro-ventes mooy jaay quantité bu tuuti yow orange bu jëlee sa cent franc wala free jël sa cinquante franc wala expresso jël sa euh, cinq cent franc looy def dara da ngay ñaxtu ñaxtu ñaxtu ba yow 500 francs jaral na la dem tribunal jëli avocat bu lay côté 150 ma nga noonu nag a déglu ma rek de déglu maa ngi jëm si loolu maa ngi jëm si loolu pour euh, pour un pass de francs euh, ma je damay perdre sama temps. waat donc il faut que quelqu'un collectif. Euh, te pas cent francs boobu kay mu ngi ciy ay milliards. Ah. Ah, bien léegi bu leer léegi nag pour jox. consommateur de services numériques seen doole si dëkk démocratie yi dañu am disposition bu ñu tuddee la classe action mooy mille personnes yu subir même préjudice bi mun nañ booloo comme une seule personne dem par pétition comme on l'avait fait avec la non booloo ñoom ñëpp dem jël benn avocat mu dem défendre leen moom la ñuy wax la classe action mais amul dans la législation nationale ah, amul mënoo ko def amul ça n'existe pas benn nit rek moo mën a porter plainte ñu boole cotiser. mais c'est pas prévu prévu par la loi. gis nañu mais bu ñu jëlee suñu cinq plaintes yi. boole ko jox ko Maria ne ko demal. c'est pas prévu par la loi moom la classe action c'est pas prévu par la loi. mais le cas de Oumar Sall le prêcheur là mais plainte collective lañ ko téye woon. Ah, plainte collective. en tout ah, cas dans le dans le secteur des télécommunications boo saisir ministère tribunal du commerce dañuy wax classe action plainte moom moo leen di amul c'est pas prévu par la législation. Ah, mieux encore mieux encore si li nga wax si association de, de des consommateurs. Ouais. déjà loi mayul association de consommateurs mu porter plainte au nom des consommateurs. kii waxoon na ko fii l'avocat là. Euh, soxna kan en tant que association de consommateurs loi mayu ñu ñu porter plainte au nom des consommateurs muy benn. ñaareel ba loi 21 voté nañ ko mooy loi bu bees boobu prévoir nañ ci disposition pour que association yi mën a porter plainte au nom des consommateurs toutefois il faut avoir l'agrément du ministère du commerce. dañuy joxe de la main gauche. réccu <laughs> de la main gauche. gisaguma benn association. pour me jouir de ce droit il faut une autorisation réglementaire. te gisaguma association bu ko mën a am bu ko am ba mën a parler porte plainte au nom des consommateurs amagul moo tax ñun bi coupure internet yi amee mënuñu saisir les juridictions nationales moo tax ñu dem cour de justice internationale de la CEDEAO hmm. ak foofu soxla woo yooyu yëpp donc loi bi dafa am ay sooxe sooxe yoo xam ne day tax ba askan bi du mën a xeex pour ay àqam yelle fam ni mu ko waree donc